bu ñaareel bi nga xam nag moom nam ko ciiñe ak tuumaal rek la waaye doguwu ca moom bu kooka ragalee waat rek ñu daal di koy jox dëgg moom mi nga xam ne moo ko kalaame du jar ñu naa ko waatal dollee koo dëgëral say wax déedéet daga moom doguwul ca tuuma ja te kooka ragal naa waat dañu koy daal jox dëgg moom mi nga xam ne moo kalaame moo jiñ taate wal yamiinu ngiñ la billahi nekk na ci yàlla allasi mi nga xam ne laa ilaha amul benn buur illaa huwa ndare moom ab julit nee na nag bu waree waat day wax billahi allasi laa ilaha illa hu muy waat naa ci yàlla mi nga xam ne moom rek mooy buur daal cay teg la muy waat bu dee saxal saxal bu dee wetti wetti wax ji gën a wóor nag mooy rek ci ni maa ngi waxe moom muy jullit bi ak muy ku bokk ci yahood mbaa nasaraan ñooye moo faaw day wax rek waat naa ci yàlla mi nga xam ne moom rek ay buur door a jàll teg ca lam cay teg mu yaxalifu dana waat xaa iman mbir mu muy aji taxaw waxinda min bari rasool yi ak fa min baru yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi rubuhi dinaarin ci kaaru dinaar fa ak sara topp lu ko ëpp wa fi xayril madinati ci burul madina ya dana waat fii daalika ci loolee fi jaami ci jumaa ja wa mawdiin ak ci ab béréb yu xazamu boobu def na ko màggal min hu ca moom nee na buñ seqee alal rek moom tam jarwaat faawu kooko dana waat waaye nag am na lu ñuy ñàngale waat ka te ñàngal googu moom bu alal ja tuutee du ko jar bu alal ja xawee am solo matkaaru dinaar mbaa mu ëpp ko lay jar ñu ñàngal waat ga ñàngal ga nag mooy day taxaw bu dee waat te bu dee ci madina dañ ko yóbbu ba ci minbaru yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax neen yonante bi nee na woon ku taxaw ci kaw saa minbar bii waat ngi loo xam du dëgg na dal di séentu ab jataayam ci sawara mooy ne jàpp ne kon moom ci waa sawara la bokk wala moo tax nag bu dee ci madina ñu ko yóbbu ba ci min bar yonante ba mu waate foofa bu fekkee du madina it dañ ko yóbbu ba ci jumaaja ci béréb bu sell ba dañ seet fu gën a màgg ci jumaaja te mooy min bara ba mu taxaw foofa waat ñoo bëgg a ñàngal rek ndax su fekkee nekkul ci dëgg mu deltu gannaaw bañ a waat wa yaxalifu dana waat alkaafiru yéefar ba billahi ci yàlla xaytu yuhazimu fa muy màggal jullit dañu yóbbu ca min baru yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ca madina mbaa ci min baru beneen jumaa waaye bu dee yéefar moom day waat ci yàlla ba noppi nag te bu dee waat na taxaw fa nga xam ne moom la gëm baragal faa waat lu amut bu dee koo xam ne day nasaraan yóbbu ko ci église ba bu dee ku mel ne yahood dañ ko yóbbu fa yahood yi jaamoo bu dee ab majuusi yu xëy na gëm na ne yàlla ci boppam am na bu ko wéetalu ci moom gëm na ne yàlla am na nawaat ci yàlla ba noppi nag ñu seet fa nga xam ne fa la gëm ba bu fa taxawee na ragal a waat lu amul mu taxaw foofa waat te bu dee sawara lay jaamu yóbbu ko ba ci néegu sawara wa mu daal di waate foofa wa isa wajada ndem am na ak taalibu aji kalaame ja kuy firi aji sàkku ja waaye mooy aji jintaate ja rek bayinatan seere baada yaminil matlubi ci gannaaw gi ñu kañu jiiñ lam yëkkun yooyu nekkutoon xalima di xam bihaa ci seere yooyu xudyeekon atteef la wóññeel ko bihaa ca seere yooyee wa in kaana dem nekkoon na nag xaalima di xam bihaa ci seere yooyee balaa tuqbalu kon deefu ko nangu min hu ci moom moom mi kalaame buñ ko laajee ne ko ana say seere andiwul ay seere ñu wax ka nga xam ne moom la doon kalaame ne ko yow waatal kon dem saw yoon kooko daal di waat dem aw yoonam far nag moom mi doon kalaame am ay seere yoo xam ne da leen a xamutoon kon su waatee ne ñii dañoo di samay seere te it bu waat ci yàlla ñu xamutoon ne seere yi am na leen gannaaw bi la ko xam kon ñu delloo si mbir ma atte ko jox ko dëgg bu fekkee na xamoon na seere te andiwu leen nag ba ka mu kalaamee waat ba def aw yoonam kon jeex na bu indee seere itam kenn du déglu seere yooyee am na ñu wax ne ah kay dees na nangu seere ya dal koy atteel waaye wax ji gën a wóor mooy lim ci ko wax rek moom daal ndegam xamoon na ne am nañ seere te andiwu leen ba ka mu kalaamee miim ba dem aw yoonam andi ko seere gannaaw ba deesu ko faale mais bu ca teg ne waxatu xile waxees na ne tuqbalu def na nangu seere min ko ci moom mët a dégg daa am ñu wax ne bu fekkee xamoon nga seere te andiwoo leen it tutee boo andee seere rek doonte fekk na waa ji waat ba demit tutee ñu woowaat ko atteel la jox la dëgg waaye wax ci gën a wóor mooy ndegam xamoon nga seere te andiwoo leen su waa ji waatee ba noppi rek jeex na wa yuqdaa def na atte bi shahidin ci benn seere wa yaminin ak ngiñ fil amwaali ci xeeti alal yi bépp xëccoo boo xam ne alal la mbaa buñ ko toppee mu dellu ci alal rek boo ci mënee taxawal benn seere mën a giñ boole ci rek daal lay jox dëgg boo taxawaloon ñaari seere moom da ajoo ngay waan waaye nag ndegam alal la mbaa muy luy dellu ci alal boo taxawalee benn seere mën caa boole waat rek daal lay jox dëgg nu jàpp ne seere dafa am nisaab maanaam ay mbiri mbir yoo xam ne seere dañuy sàkku na mat tolluwaay sàngam bu dee ci njaaloo mbaa jëf-jëfi loot ya nga weesoon ci buntu ba ne ñeenti seere yu maandu moo cay doy bu dee loo xam ne du alal te it du dellu ci alal niki léegi muy bëgg a tudd ci mbirum sëy ak fase ak géttanu yooyu ñaari seere yu góor yu maandu ñoo cay doy bu dee nag alal mbaa loo xam ne boo ko toppee mu dellu ci alal moom boo ci xasee am ñaari seere rek doonte kenn ka day góor kenn kay jigéen daal jekki-jekki arteel la du aajoo ngay waat boo amee benn seere itam boo mënee waat boole ca ñu daal lay jox dëgg bu dee nag loo xam ne yoonu góor nekku ca kon ñaari jigéen mooy nisaa bi seere sa bu ci ñaari jigéen seere yu maandu rek ndegam loolu du yoonu góor ni ki mbirum am doom ak sikk su nekk ci sawukaay ak ka juddu bu mu juddoo andi na bakkan am déet lu mel noonu moom ñaari jigéen yu maandu rek doy na ca moo tax mu jàll ci wala yuqudaa deful atte bi daalika ci loolee fii nikaahin ci ab sëy aw talaaxin wala pase aw xaddin wala gédan sëy ak fase ak gédan ak yu demee noonu nga xam ne du alal tey du dellu ci alal moom ñaari seere yu góor yu maandu ñoo cay doy boo ci amoon benn seere itam doo mën a waat boole ca mel ne tey boo ne woon jigéen ji yow day sama soxna nga dama laa takk boo taxawalee benn seere bu seere takk nga itam doo mën a waat boole ca du tax kooko doon sa soxna yoon du ko nangu ñaari seere yu maandu rek ba tey bu jigéen ne woon sama jëkkër ji fase na ma taxawal ca benn seere képp yem ca mënu caa dolli keneen dañuy jàpp ne bu góor ga miimee ne fasiwuma ko rek ne ko wax nga dëgg fasiwoo ko ndax fase moom ñaari seere yu góor yu maandu ñoo ko mën a saxal du mel ne géttan bu nit ne woon diw mii day damaa waxal dox tànki njaaloo tey du dëgg daal di bëgg koo ko cawal dañ koy wax ne ko ana say seere su andee ñaari seere yu maandu jox ko dëgg cawal ko kookee ko xas waaye bu taxawalee benn seere bu maandu kese du ca mën a boole waat bañ jox ko dëgg déedéet wala fii dami am din du caa génn ci dereti tey dereti tey jam-jamu tey moo ko tax di wax jam-jamu tey ni mu la waxee moom borom téere bi mooy bu nit ne diw mi moo ma jam te moo ko tey taxawal ci benn seere du ko tax a doy bu waatee boole ci du ko tax a doy wax ji gën a wóor nag mooy jam-jam yëpp a yem bu tey ak bu teyee fut ñoo ci yemoo bu dee xeetu jam-jam rek moom bu kooku amee benn seere mën a waat boole ci rek ñu daal di koy jox dëgg kon nag li mu la wax ci wala fii tamit am din bul ko déglu am na wax ji muy bëgg a wax léegi ci kanam mel ne ku ko woyefal te jooja moo dëgër xaaral ba àgg ca jooja aw nafsin wala rey bakkan illaa maxal qasaamati ndare mu ànd ndim la fi nafsi ca bakkan ba daa wax ne bu ñu reyee bakkan ñu taxawal benn seere bu seere ne diw moo rey diw loola kat waat juróom fukki ngiñ moo koy mën a saxal waaye nag waat benn ngiñ dong du ko tax a doy waxa nan ci gannaaw ne bu amee kenn ku maandu ku seere ne diw moo rey diw diw moomee taq na mbokki ka ñu rey bu ñu mënee waat juróom fukki ngiñ ñu jox leen dëgg waaye nag waat benn ngiñ dong ci yooyu jamono du doy waxadu xile waxees na ne yuqudaa def na àtte bi daalika ci loolee fil jiraax ci jam-jam ya loolu nag mooy li woyofal ne waxat xile waxees na mel ne day lu woyof te fekk na mooy li dëgër wax ji dëgër mooy xeeti jam-jam yi moom moo xam tey la moo xam ñàkk tey la bu kooku amee benn seere bu ca mënee boole waat daal koy jox dëgg kon lee mu njëkk a wax ne la wala fii tam yi xam din bul ko déglu jàppal li mu mujj wax li nuru woyof moo dëgër wala tajoosu du dagan shahaadatu nisaay seeres jigéen ña illaa fil amwaali ndare ca alal ya maanaam jigéen moom ci mbirum alal rek mbaa luy dellu ci alal ca la mën a seere waaye loo xam du alal dellu ci alal ñi ki takkub sëy mbaa fase mbaa yooyu jigéen mënu caa seere te wa mi atum raatin téeméeri jigéen kam raatay ni mi ngi mel ne ñaari jigéen wa daalika te loolee kara julin mi ngi mel ne ak góor waaye it ngudi génn yokku daa def na atte bi daalika ci loolee maa rajulin ànd ak genn góor aw maal yamini wala ànd ak ngiñ fii maa ci la nga xam ne yee joosu dana dagan fii ci moom shaahidun benn seere wa yaminun ak ngiñ mu ne ne jigéen mën naa seere ci alal jàppal ne faaw nga am ñaari jigéen mu door a doy benn seere bu amee ñaari jigéen dana wecc ci benn góor mel na ne kon am nga benn seere bu maandu bu fekkee loolu ñu xëccoo alal la mbaa muy dellu ci alal te am nga ñaari jigéen ñu maandu ñu la ca seereel kon boo waatee boole ca rek mu doy waaye nag boo amoon ñeenti jigéen mbaa téeméeri tam kat du ko tax a weesu benn seere bu maandu dong maanaam jàppal ne buñ ne ñaari jigéen wecc na benn seere bu góor bu maandu bul defee ne ñeenti jigéen te daal di wecci ñaari seere yu góor yu maandu déedéet jigéen lu ñu bari bari bari ak lu ñu maandu maandu bu ñu xasee mat ñaar rek jàppal ne am nga benn seere bu maandu su fekkee loolu alal la mbaa muy loo xam ne boo ko toppee bu dellu ci alal kon boo waatee boole ci rek daal lay jox dëgg ba tey nag boo amee kenn góor ak ñaari jigéen ñu maandu kon am nga ñaari seere kon kon bu dee alal du aajoo ngay waat mbaa dara wa shahaadatu imra'atayni seeres ñaari jigéen faqat dong fii maa ci la nga xam ne laa yattalihu du yër alayhi ci moom arrijaalu góor ña minal wilaadati ci ak jur wal istihlaal akuk tàkku tàkku mooy jooyu ka juddu ka juddu ndax jooy na wala jooyut wa shib fi ak nduróog moom wa shib fii jaayisatun aji dagan la lépp loo xam ne yoonu góor nekku ca rek nga xam ne mbirum jigéen la su ca ñaari jigéen ñu maandu seere rek mu doy di ki mbirum am doom gi mu wax wala ka juddu ndax jooy na wala jooyut ñaari jigéen doy na ca seere wala te jur su dagan shahaadatu xasmin seere sa aji xuloo nit bu xuloo keneen ñoom ñaar kenn mënu caa seere ti moroom ma ci xañ ko dëgg mën na koo seere jox ko dëgg nag waaye bu ko bëggee xañ dëgg ma yoon du ko nangu ndax xuloo buñ xuloo woon dañuy jàpp ne mën na caa feeñ wala doon yi nim di caa génn ku ñu tuumaal ku ñu tuumaal ci diineem ci def lu aay ci diine kenn nangu seereem wala yuqbalu deful nangu ilal xudoolu ndare way maandu ya atte yoon yi mbirum seere da caa am solo lool moo tax faw ka ñu nangu mu seere day nekk ku maandu ku maandu nag faw day nekk gor di jullit am xel kàllafe mucc ci caay-caay néew na nag du mooy yàlla mukk ndax ñàkk mooy yàlla moom ab yonante mbaab siddiq rek daanaka moo ko man waaye nag day doon koo xam ne dana mucc ci def bàkkaar yu mag yi te it la muy topp yàlla mooy ëpp la muy moy ci bàkkaar bu ndaw moom daal day sori bàkkaar yu mag yi bari lool ay topp yàlla te néewaanu mu toggoo bakkaar bu ndaw ku mel ne kii daal mooy ku maandu moom la ñu nangu seereem kuñ tuumaal ci diine mooy kuñu tuumaal ci def loo xam ne diine nanguwu ko nee nañu takk-takk bi kay mooy képp koo xam ne muy seere boo ko toppee rek ñu gis ca lu ñuy wóoloo jiku rek doon ci sax ajuwul ci wàllu diine ki buñ ko toppee mel ne daa bëgg a teg lor jiw mbaa daa bëgg a jox njariñ jiw rek su boobaa du nangu seereem wala tajuusul ragan shahadatul mahduudi seeres ku ñu gétan képp koo xam def na nañ koy gétane loolee mu def bañ gétan ko ca moom duñ ca nangu mukk mu seerewaat ca ndax mën naa bëgg moroom ne du man dong maa ko ma sa def jaral ko mu seere ca lu amut di sax bu tuubee tuub gu sell moom mën naa seere ca lu bokkut ak loola wala shahadatu xabdin du caageenu seeres jaam wala sabiyin du caageenu gone faw kay mat seere day nekk gor waaye jaam di nangu seereem kay seere faw day nekk mukallaf waaye gone seereem doy wala kaafirun du caageenu bi yéefar ba tey seere day nekk julit waaye yéefar du lay seere wa itaa taaba ndem tuub na almahdoor kañu gétan fi sinaaj njaaloo ko bilet ko nangoo shahadatuhu seereem illa fi sinaa ndara ci njaaloo daa wax rek ku gétanoon ci njaaloo bu demee ba tuub tuub gu sell bu bëggee seere ci lu bokkut ak njaaloo ngam defoon bañ gétan ko ca ñu nangu mu seere ji waaye loolu mën nga ne rek képp ku defal dara bañ gétan la ca lu mel noonu moom jeex na mënul fexe bañ nangu ca sa seere waaye lu bokkute loolu nag moom buñ gisee ci yow nga tuub tuub gu sell moom boo bëggee seere ci leneen ñu nangu ko muy njaaloo bi mu wax muy leneen a ci yem wala tëjoo sut dagan shahadatul ibni seeres doom ju góor lil abooy ni ñeel ñaari waajur wala huma du caageenu seeres ñaari waajur ya laxoo ñeel ko jàppal ne yow mën laa seereel sa ndey mbaa sa baay jox leen dëgg ñoom itam mën ñu laa seereel jox la dëgg te ngeen jege jege goo xam ne dañuy bañ jege gi tax kooko seeral ko lu amut buñ ne diw dalaa jege mënu koo seeral jox ko dëgg nag mën ngaa seere xañ ko dëgg moom nga seere xañ ko dëgg moom daañu ko nangu ndax dañu xam ne la tax lam lay jege-jege joxoo ko dëgg moom day dëgg rek wala zow ji du caageenu seeres jëkkër li sow jeti ñeel jabar wala xiya du caageenu seeres jabar lëfoo ñeel jëkkër jëkkër jabar dañoo jege-jege goo xam ne nanguwuñ kenn ka seeral moroom ma jox ko dëgg nangu nañ nag kenn ko seeral moroom ma xañ ko dëgg wate joo su dana dagan shahadatu axi seeres mbokk alxaduli mu maandu li axi yi ñeel mbokkam bu fekkee ñoom ay mbokk lañu nag mbokk du tee ku ci ne mën naa seeral moroom ma jox ko dëgg waaye dañuy sartu moom mi seeral mbokkam ni sama mbokk mi moo am dëgg muy ku maandu maandu goo xam ne ñëpp xam na ko ba xam nañ ne ak ragal yàlla am wees na moos kii di mbokkam tax mu di ko seeree lu amut loolu faa weñ ko ci sart waaye waxo see ragal yàlla noonu nag moom bañ xam ko ca moom bu seereelee mbokkam jox ko dëgg ñu nangu ko wala tajoo sud ragan shahadatu mujarrabin seeres ku ñu nattu fii katibin ci aw fen koo xam ne seetlu nañu at mi mu fen ci lu ëpp benn yoon waaw koo xam ne at mi seetlu nañu mu fen ci lu ëpp benn yoon kooku bu seereetee duñ ko nangu te sax at mi yëpp mu fen ci benn yoon dong moom du ko teemat seere waaye nag at mi ñu seetlu mu fen ci lu ëpp wenn fen moom du doyee ci seere aw mu zahirin wala aji feeñal li kabirit ñel bakkaar bu rëy ku def bakkaar bu rëy feeñal ko ni ki naan sàngara daanu ñu koy gis wala njaaloo njaaloo gu fes gu ñu xam ku mel noonu doyatul seere wala jarin du jaageenu aji ñor di dina si jëm ci boppam na fa njariñ koo xam ne la muy seere boo ko toppee njariñam lay doon duñ nangu seereem mel na yow nga tudd Ahmadou Diop bokk ak Ahmadou Ndiaye mii ab société nga xam ne yéen a bokk alal kon yow boo ma tuumaalee ci ne ma amel nga ma nangam ci alal moom mi nga bokkal alal ci bi ca day seere ne wax nga dëgg ameel naa la loola ndax li muy tekk rek mooy bu ñu ko waxee ba alal ji sax ba fay la ko it yaag moom yéen a koy bokk day mel ne kon seere su muy seere ma nga cee ñoo di njëriñ boppam wala daal yéen du caa gën aji jiñ baralan lor xan xaa walis boppam ba tey bu ñu gisee ne moom mi seere kat ku topp seereem sii daa mel ne ku cay wattandikul boppam lor mel na misaal bi nga joxe woon léegi yéen ñaar yéen a bokk société bokk alal su ma jiiñee kenn ci yéen ñaar ne ko ameel nga ma ka ca des du la seere ci déedéet ameelu la ndax day mel ne kon moom la muy seere bu saxee rek day tax seen alal ñoom dara du ci jógee te man li ma wax mooy yéen ameel ngeen ma dagam yéen a bokk alal ji nag kenn ka du doy seere rek ci déedéet ameelun la wala wasi yéen du caagen ku ñu dénk li yetti mi ci ñeel jirimam ba ci yooyu jamono ab jirim faaw dañ koy wutal koo xam ne moo koy taxaw yor ay mbiram dagam bàyyim nekku fa kon dañuy seet kuñ ko dénk mu yore ay mbiram kookee nga xam ne nag moo yore mbiri jirim ba du mën a seere jirim ba jox ko dëgg waaw niki bu jirim ba dee jiñ kenn ne ko ameloon nga saa baay nangam nga yoree jirim ba ñu dénk ko ko du ca doy seere ne wax na dëgg de kii ameloon na bàyyam nangam déedéet wata joo su dana dagan shahaadatuhu seereem nga xale yi ci kawam a shahaadatu lahoo mooy seere jox ko dëgg a shahaadatu xale yi mooy seere xañ ko dëgg daa wax ne nag kookee ñu dénk jirim ba mën naa seere xañ jirim ba dëgg waaye mënta seere jox ko dëgg loolu rek ngay jàpp wala yejoo su dagan taadilu nisaa yi maandu loogu jigéen ña wala tajrihu hunna du jaageenu seenu jam seere jam seere mooy wax ne kii matul seere daa wax ne wax ne kii maandu na ba doy na seere wala wax ne kii maanduwut ba doyut seere góor rek koy def waaye jigéen mënu ko jigéen wax maandu kenn du tax ñu gëm ko jigéen wax ñàkk maandu kenn du tax ñu faale ko maandu loo moom mbaa jam seere góor rek koy def wala yuqbalu defu nangu fi taskiyati ci sellal seere illaa man rek koo xam ne yàqul day wax ne xadulut aji maandu la digganteem ak boroomam ridam te kuñu gërëm la digganteem ak nit ñi ki nga xam ne mooy seere bu fekkee ne xamuñu ak maandoom te aajowoo ñu woo ko xam ak maandoom mu wax ak maandoom ñu door a nangu seereem wax ga koo koy wax ak maandoom nag bay nangu ak seereem loolu moo tudd sellal seere mu ne nag képp koo xam ne day sellal seere maanaam day leeral ne kii mat na seere kon day wax ne seere naa ne moom daal ku maandu la digganteem ak boroomam ku ñu gërëm la digganteem ak nit ñi loolu lay wax bañ mën a doyloo kookee ne mat na seere wala yuqbalu te deful nangu fii daalika ci loolee wala fi tajrihi du caagéenu ci jam ga seere waaxidun kenn rek te nee na kat jam seere wax ne kii matul seere ak sellal seere wax ne kii mat na seere faaw ñaar a koy def waaye kenn képp bu ne kii mat na seere du tax ñu doyloo kooku ba di ko seere loo kenn rek bu ne digum yi matul seere te yéen ñu koy seereloo la wax dong du tax ñu ne matul seere moom daal lay tax a mat seere ñaari góor ñu maandu ñoo koy wax lay tax a manki seere itam ñaari ñu góor ñu maandu ñoo koy wax wa tuqbal def na nangu shahaadatu sibiyaani seeres gone ya fil jiraax ci jam-jam ya qabla an yaftariqoo ci njëkk ñuy teqalikoo aw yedd xula walay tàbbi bay na xam seen diggante kabirul mag gone yi bu dee ñoom dong ñu jàppante xeex turante deret ñoom gone yi bu ñu leen paree ñoom dong fekk tasaarooguñu mag awul ci seen biir kon mënees naa jàpp la ñu wax ci xeetu seere ci jamante nangu ko waaye nag buñ xasee teqali ko bañ sol leen ay xel wala mag dugg ci seen biir ba tàmbali wax naan boo demee bu la laajee neen nangam neen nangam loolu moom moo ko yàq bu fekkee loolu amu ci daal moom mënees naa doyloo seeni seere ñoom gone yi ci xeeti jamono yooyu xewoon seen diggante wa i sax talafa jam wute na almutabayi xaani ñaari way jaayante ustuxu li fa kon giñloof albaayu aji jaay ja su ma yàqus topp dana jàpp almubtaaw aji jënd ja aw yaxalifu wala muy waat wa yabraw te muy set ñaar ñi jaayante mooy kii jaay kii jënd man nañoo juumoo ci xeetu njëgg mbaa tolluwaay ba ak yu bare bare waaye moom da ko gàttal rek wax ci wax bu gàtt gàtt man nga ne daal kii jaay kii jënd buñ juumoo mel ne kii jaay ne ko dama laa jaay woon lii téeméer ne ko déedéet dama ko jaay woon juróom-ñett fukk kon loolu xëccoo la dañuy wax ne kon yow miy jaay waatal ne téeméer nga jaay woon kooku mooy njëkk a waat su waatee ne téeméer laa jaay woon ñu ne yow miy jënd boo nangoo li mu wax nga fay ko jën wi su fekkee nanguwoo loolu nag nga waat ne man kat juróom-ñett fukk laa jënde woon nga daal dem mu dem mooy mu téyem jaayam nga téye suñu njëkk waaye ndegam daal mu xëccoo nañ ci njëg gi ci ni ma ko misaale te lañ doon jaay moom ma nga fay teew ak kon dara weegu ci bu fekkee ne jaaykat bi mën naa waat ne man téeméer laa jaay woon ban juboo jënd kër ba nangu baax na bu nanguñu ne ko waatal yow juróom-ñett fukk rek laa jëndi woon bu kenn ku ne waatee nga wax nag ñu ne kii jaay téyel sam jaay kii jënd téyel sam njëkk loolu nag wuuteeg ñooñ ñaar moom kii jaay ki jënd ay wuute yu bare bari la ci téere yi fiq yi moom moo ci doy loo loolu rek ba isax téléphone dem wuute na al mutadaa yaani ñaari way wootante fi shay'in ci dara bi ay diihima loolu nekk na seen loxo ñoom ñaar xalafaat kon ñu waat ñoom ñaar waxu si ma te séddaleef ko béy na xuma seen diggante nee na ñaar buñ jàppee ci dara ku ne ne maa moom te ñoo ñëpp ñoo ci bokk jàpp waaw te kenn amu ci seere su boobaa dañuy wax ne kon ñoo ko bokk ñoom ñaar ne leen ko séddale ñu bokk ko ñoom ñaar way na xaamaandeem taxawal nañ ñoom ñaar bayi ne tey ni yaari seere xuddee kon àtteef bi afdalihima ci gën jaa maandu ci ñoom ñaar li wax li daal mooy ku ne taxawal nay seere waaye kenn ki moo gën a maandu lay seere su boobaa nag bu mënee waat boole ja ñu ne ko yaa moom fa inis tawa yaa ndem yamoo nañ ci maandu nag xalafaa ba tey kon ñu waat ñoom ñaar wakaanate mu nekk bay na ma seen diggante fekkee ku ne taxawal nga seere te yaari seere yi ñu yemoo ci maandu te ñoom ñaar ku ne jàpp na ci loolu di xëcc mu nekk seen loxo ba tey rek ñu leen séddoo leen ko yéen a ci yam ba ñu ko ci wax kenn bàyyi kenn wa isaara jaxandeem dellu na ashaahidu aji seere ja baa da hukk mi ci gannaaw àtte ba uxrima kon fay loof ko maa la nga xam ne atula fa sànk na ko bi shahaadati yi ca seereem sa ini tarafa ndéem tudd na ne ànd hoo naka moom shahida seere na bi zoorin ci neen xaali hoo wax na ko ashaabu malikin àndaalay malik li ëpp ci àtte yoon yi moom day taxaw ci kaw seere yow nag boo seeree bañ sukkandiku sa seere jox koo ko dëgg gannaaw ba nga wëlbatiku ne ah man kat wax dëgg yàlla seere naa lu ma xamul baa nga ne ah man kat damaa juumoon jekki di naattab la yooyu la àttekat bu xas na àtte moom du ko dindi wax day jàpp nga ne bu fekkee dañoo jiñoon Ahmadou Diop mi ak junni yow nga seere man da fekk war naa ba góor a njaay di lebal Ahmadou Diop ak junni kon xam nga ne ko am kooku am na benn seere bu waatee boole ci rek daal dëkkal li wax nga wax loolu ba noppi nag wëlbati bi dellu ci gannaaw tebbi la nga seere woon kon yow yaa tax kee fay junni bi kon yow yaa koy fayaatu junni waaw ndax yaa tax mu fay junni boobee atikat la ma ati woon noonu du ko dindi wa man xaala ku wax ne radatu delloo naa ilayka jëmee ci yow maa la nga xam ne wakkalta nii wakkiloon nga ma délégué woon nga ma xaale ci moom tont la mooy bal xawlu kon wax ja xawlu koo waxama su fekkee da ngaa doyloo nit da ko demal fayali ma bor bi borom bitig bi gannaaw nga ne ko waaw ana laal yónni woon ci borom bitig ba mu ne damaa dem fekkuma ko fa ñëw naa ba jox la ko nga ne ko déedéet joxuma ko de dañuy jàpp ni wax na dëgg ñëw na ba delloo la ko bal xawlu xawlu koo mooy wa dagam na nga koo doyloo woon da ko demal fayali ma te moom nee na dem na fekku fa kooku ñëw na joxaat na la ko dañuy jàpp wax na dëgg joxaat na la ko rek loolu la ñuy jàpp aw xalaa bay xii wala ci jaayam it ba tey fal xawlu wax ja xawlu koo waxama rek danga ko ne woon lii jaayal ma ko gannaaw ba nag nga ne ko an laal doon jaay loo mu ne la jaay naa ko jaay jërut ñëw naa ba jox la ko nga ne ko déedéet joxoo ma ko de mu ne la jox naa la ko de mais jàpp di wax na dëgg jaay na ko jërut jox na la ko rek li nga ko doyloo woon li nga ko doyloo rek moom la ñuy jàpp aw dafaatu wala mu ne jiñ naa ileeka jëme ci yow tamana xoo jëgam nga ba tey fal xawlu wax ja xawlu xoo waxama rek danga ko ne woon lii jaayal ma ko gannaaw ba nag nga ne ko ana laal doon jaayloo mu ne la jaay naa ko jaay jarut ñëw naa ba jox la ko nga ne ko déedéet joxoo ma ko de mu ne la jox naa la ko de mais jàpp di wax na dëgg jaay na ko jarut jox na la ko rek li nga ko doyloo woon li nga ko doyloo rek moom la ñuy jàpp aw dafa waxtu wala mu ne jiñ naa ilee ko jëmee ci yow tamana xoo njëgam nga ba tey fal xawlu wax ja xawlu xoo waxama rek danga ko doon jaayloo dara gannaaw ba nga ne ko ana laa doon jaayloo mu ne la jaay naa ko ba mu jar ba ma jox la njëgg nga ne ko déedéet joxuma njëgg de dañuy jàpp ne wax na dëgg jaay na ko ba mu jar jox na la njëgg aw wadixataka wala sa ndénkaan la aw xiraataka wala sa xiraatu ja yépp rek fan xawlu wax ja xawlu koo waxama